Monsieur le ministre président de la république faut voter dialogue parce que quand nous avons fait l'élection présidentielle le fichier électoral est audité Les experts audité il est fiable à 98,5%. Nous avons fait l'élection. élection résultat ñu commencé contester résultat yi mais loolu mënul bett réew moo am 321 partis politiques dégal dignité am na ko fi taxaw léegi di wax te wóor na ma ni amul conseil municipal amul conseil départemental ci Sénégal gépp te bu ko neexee mu taxaw fii di wax donc loolu mooy di coow ci réew mi parce que bu ñu nee ñëpp a tolloo ku nekk c'est la démocratie ku ñëw mën a wax il faut que am ku ñëw guux di wax te bu demoon ci réew mu di am kenn voilà le problème kon léegi li may wax mooy monsieur ministre xam nga waxtaan ba juboo moo gën lépp loo mën a gis dañu woote waxtaan te président ba mu toogee ba tey waxtaan boobu lay woote mais ki dem élection gagné ak taux bi ko yàlla may mu tàllal loxoom ni ñun ñëpp ñëw leen ñu waxtaan mais kan moo leen wax ni ñun la loi sur le parrainage bobu dañ ci bëgg a génn déedéet dañu ni nañu sét nuñ ko aménager ci élection locale pour adapter ko ñun liñ waxon waxoon génn ñu ci dé ñoo ngi ci batay tey nak nag koy adopter ci li nga xamé moy élection locale lolu mo jar wax monsieur le ministre ngeen wax né dañu bëgg organiser élection ba bu ñuy waxtaan nit ñi dajé ba dialogue bi tàmbaleeg légui def nañu 37 séances talaata ak ajjuma bu nekk ñu daje ministre de l'intérieur am na ay prérogatives yu mu moomal boppam sax mais def ko jël may leen parce que dañ ko ne papier en yi nga xam ne dañ ci doon def ministère de l'intérieur sax bëgguñu mu nekk ci réunion yi bu mu amati ministère de l'intérieur mu wuti hôtel di ko fa def ñëpp daje di waxtaan waaye nañu waxtaan ci waxtaan boobu bu ñu juboo lu ñu juboo ñu tënk ko man li ma gëm mooy date bi ngeen jël bis bu ngeen waxtaanoon ba ni nañ ko def deux 2022 bu ñëwee fii ñu wote ko loolu moo wér parce que waxtaan boobu moo ñu conditionné ki la ni nag maa ngi waxtaan yaakaar naa ni dinañu pare avant le vingt 28 mars 2021 dañ koy topp bu paree ñu jàpp date bi bu parewul bu bis bu paree ñu juboo rek ñu def ko loolu mooy li am solo am na nag ko fi indi amandement indi woon na ko ci commission technique ma koy wax léegi bu liirul e-, exposé des motifs bi kenn du ko fi xool amendement ku ko indi da ngay mën a lire exposé des motifs bi loolu bu fekkee ni indi mënoo lire exposé des motifs bi boobu amendement kenn du ko fi jàngat dañ koy daal di rejeté mu jeex maa ngi leen di sat maa ngi leen di gërëm